asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal xalifa général des Baye Fall di ko ñaanal suñu jëwriñ sëriñ Amsa moom sëñ Ablaat ak sëñ Basiru Coro ba sëñ Abdourahim mi nga xam ne mooy suñu kilifa euh, man nag maa ngi tudd Modou Diop Diawbe ñu dénk ma lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ci dëkk bu sell bi di Touba waaye euh, prévention ak alerte ak lu jëm ci war may dëkk bu sell bi di Touba ñu leen di leeral ni nag màggal Touba mi ngi jëm ci réew mi ak ci biir réew mi ak bitim réew ak waa Touba ñu ngi xamal waa Touba gi ñu dëkk ñu leen li Sëñ laa doon tere jëm lu tux naan sàcc ak dégg nga la koom euh, jaay sa bopp ak dégg nga la koom yëpp yoo xam ni aju na ci lu mel noonu tëgg ak musique ak lu aju ci football ak jeu buñ la autorisé ak buñ la autorisé dañ koy gën tere waat ndax joxaat nañ digal lu bees tàq pour ñu gën koo doolelaat ci dëkk bu sell bi Touba. yëg nañ ni fi ñu toll nii Touba ñu ngi yaakaar ni col gu bon tere wuñ ko fii. kenn ko ne la nga yaakaar ne da nga jëm maanaam siriku nañ déedéet li sëñ bi doon tere danañ tey lañ koy gën a tere te dañ ko saytu ñi jógee ci réew mi ñu ngi leen di xamal ni sëriñ bi day bañ ko fi sol tubay col gu bon ak col gu yaraax na ko ñëpp xam sëriñ bi day bañ football euh, day bay yooyu yëpp da koy bañ yooyu nag danañ ci jógaat ay opération yéen ñi nga xam ne yéen parent parents yi nekk Touba képp ko xam ne jàppati nañ sa doom ci football danañ ko yóbbu commissariat wala ñu yóbbu ko gendarmerie bu ko defee euh, danañ leen téye fayloo leen mais duñ ca yem dañuy def mooy teene bu jàpp kenn ci football danañ fexe ba ñetti des ñëpp ñu jël seeni i tur euh, jox leen ay convocation ñu wujj ji police bu ñu demee dañ leen fayloo ay sanctions yu diis a diis a diis ñu waaye leen xel tamit li nga xam ne moo wër jumaay Tuubaa ju seen ji ñi nga xam ne dañ fi ay communication yor ay rajo yor ay baaful di teg musique ak tëgg dañ koy tere na ko ñëpp xam ñi nga xam ne dañuy jaay ay produits comme ñi nga xam ne démb interpellé nañ leen ci am na koo xam ni euh, wax na ni mairie bi moo ko daggaloon euh, kayit mairie bi mën na laa daggal reçu pour nga dugg touba mais tere yi ak fecc yi ak publicité yi ak tëgg yi ku ko ci def danañ fexé ba yow moom di jaay produit ce produit mom même bo fayé tam da ko génné touba jaay ji ko feneen dañ nga top loolu nañ ko bàyyi xel kon ñi ngi koy wax ñi nga xam dañuy publicité ci ba paré tamit tere lépp lo xamni bokku ci njàngalem sëriñ touba waaw ak ku fi ñew di def menen façon njàngaleen mo xam bokku ak njàngalem sëriñ touba di jàngale ci dëkk bi loolu tam dañ ko and ak ñi nga xamné ñoy ñooy force de l'ordre yi parce que touba da am lo xamni ne touba koy tere parce que dëkk bi ville spéciale la daa am loo xam ne sëñ bee koy tere te yoon tere ko am loo xam ni yoon da koy tere te biir Touba bokk ci ñuy yëgal nit ñi li nga xam ne yoon tere ko te sëñ bi da koy tere ñun ñooy jàmmaarloo ak ñooñu di leen jàpp di leen teg ci yoon na leer nit ñi nag dafa mel ne dañoo dégg ni fan yi am na ñu doon liggéey am jafe-jafe rek ñu yaakaar lu neex waaye def déedéet duñ leen ci bàyyi tey duñ leen ci bàyyi suba dañ ci gën a engagé wu te dañ ko commencé moo xam ñiy football ci biir dëkk bi la moo xam ñi fi def naka sudu noonu la ci biir dëkk bi la moo xam yeneen secteurs yi nga xam ne secteur agression la ak banditisme yëpp danañ ànd ak police ak gendarmerie dugg fa te la ca war yëpp danañ ko def ñi ngi leen di xamal ni danañ gën a yéen ak communication bi bu leeral ñu xam ne daal képp kuy waaj di ñëw boo yaakaar ne da nga fi def si lu bon bay ba a dëpp boo yaakaar ne mën nga fi def ay sol tubay sol pantalon sol lu la neex tey jigéen danañ dal ci sa kaw euh, tey buñ la jàppee sanction lañ la defal dañ la fay loolu seer ba boo liggéey nga xam ne sa yoon nekku ci dañ la jébbal yoon bu dee police la secteur am bu dee gendarmerie loolu nag mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne